mooy titre d'état la fekk loo xam ni ñun ñëpp a ko bokk ñun askan wi muy yoon wu ñu daan jaar depuis 1930 jusqu'à maintenant moo nekkoon suñu digganteeg Sicap muy tali ba da dugg Grand Dakar dugg Sicap génn Sicap dugg Grand Dakar mu xëy baare ko état di ko seetaan mu xëy fekk terrain boo xam ne ñëpp ko bokkoon muy terrain kul gi fi lañ daan entraîné bu sa boo boo xëyee ma sa am naqari sax wala ngay par da nga ñëw ci terrain bi mu xëy fatt ko nga ñëw jël ko ci biir Grand Dakar desetul dara nga ñëw fekk titre foncier jàmbur jaay ma ko jaayu ma la. ça fait presque léegi mu mat cinq ans sonn naa ci loolu. amul ku ma woowul. amul du amul ku ma convoqué man leen mënu ma ko jaay alali jirim la. démb mu ñëw ay vers kër quatre heures. jékki rek envoyé ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay employé ñu ñëw indi seen machine man leen jox leen ma këyit bu wane nii. bu ngeen ma wanee benn kayit bu tax. ngeen toj fii rek man ma dama dem sama yoon amuñu ko ñun ma waat baax na kon léegi bàyyi ni ñu xaar kayit tey daal sa matin la ñu xëy rek ñu ne ñëw nañ ànd ak waa Descos toj ko mais man dama xamoon loolu loolu loolu fan la xewee ana doomu Grand Dakar yi ana lan mooy suñu valeur ana ñun lan la ñuy tekki ci suñu réew mi bàyyi benn doomu aadama ñëw bëgg ñu toroxal jël lu toll nii tabax ci suñu digg dëkk ñu di ko seetaan bu ëllëgee ñu yàq suñuy doom duñ xam ëllëg ñu an suñu patrimoine an suñu jom an suñu culture ana lan la ñuy wax suñu doom ëllëg bu ëllëgee nit ku ne da nga war a taxaw ci sa jom danga nga war a taxaw ci sa ngor da nga ngi bu ëllëgee nga xam kenn kayoo yaay kan. Ah, dooguma a sax mais si biir loolu ndax ñoom dañ leen jox li nga xamante ne moom mooy. Euh, papier ngeen ñu mën a daaneel li nga xamante fekk man dama ne. Euh, kii di jox kenn ku amul contrat demal kontóoru ndox baa nga na le ki titre foncier kër gi lañ ko lañ ko amee kii Bambi Kayta moom moom moom dama ne le dem nañ tribunal ma gagné ko tribunal désigné un bu tudd Bambi Kayta maa ko fekkee këram ci VDN bi mun ma am 1973 fii laa njëkk a defee liggéey bi ma njëkk def moo def expertise mu delloowaat ko tribunal mu jox ma ordonnance bi. mi ngi ci avocat bi man ah, li ma lay wax ni du ay du ay détail loo ma laaj këyit laa lay jox man waxuma la làqu ci ginnaaw ma sàmm waxuma làqu ci ginnaaw ma demba loo ma laaj këyit laa lay jox. ndax danga jàpp ne dañ ko dooleel fi nga xamante ni. ba mu am ah, sañ-sañ daal di daaneel lii nee na fii Amadou Ba moo ko jaay. Amadou Ba moo ko jaay moo ko wax Amadou Ba Amadou moom moo ne moo ko jaay fii comme Amadou moom moo ko jaay. Amadou Ba premier ministre actuel premier ministre moo ko wax. boo waxee tubaab bi mun la Macky Sall ak Amadou mi ngi ci sama poos. ah bon ah, bien sûr loolu koy dégg ngeen ko loolu jarul wax Modou Mbaye wax na ko loolu koy jooy nañ ko ba tey loolu nu nekk filmeel fii lépp benn doom benn étranger bu ko mën a jël ci réew mi fii ba fële ngay seen lépp. terrain bu stade bu ñëpp bokk terrain de football bu ñëpp bokk nga xëy ñëw tëj ko yoon bu ñëpp daan jaar nga xëy ñëw tëj ko kenn waxul. ngay fëlbatiku nak kër jàmbur di nangu kër jàmbur yi ba des benn këru miskin nga ñëw bëgg ko jël mais kii loolu fan lañ jëm ñun fan lañ jëm. le maire de la